فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جاناك فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لي بانا كوني لحو حمدي بما ستبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له شكري وكفى الشيطانا kifayatal baqina ma atana assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa fedd liwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim di ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram waaye ñaanal sëriñ Abo Mohamed xalifa Cheikh Mahamadul Mamoun sun borom may ko fan wu gudd lool waa ànd ak wér-gu-yaram te defal ko mbooleem njabootug maam Cheikh Anta gépp di ñaanal jëwriñu ëtt bi ñu toog di sëriñ Cheikh Anta xalifa Cheikh Mahamadou Roqeya yàlla na ko sun borom may fan wu gudd waa ànd ak wér euh, kàttanal ko ba mbooleem naalam yëpp mu àggale ko mbokk yi ñoo ngi am mbégte toog ci ndigalul Cheikh Mahamadul Mamoun ibnu Cheikh Mahamadou Roqeya mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi. mu ànd ak mbooleem rakkam yëpp feggoo ak euh, sëriñ Cheikh Abdou Khadir euh, moom sëriñ Amdi moom Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ Amdi Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Mamoun ak imaam sëriñ Alhaji Mbacke moom Alhaji Seexu ak mbooleem njaboot gi yëpp ñu fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ne mi ngi jëm ci liggéey bi nga xam ne euh, sëriñ Cheikh moo ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadul Mamoun rakkam mu ànd kook rakkam yëpp ak njabootu sëñ Modou Rokhaya gi ginnaaw boo xamee ne jàmbaari lislaam jooje di Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké jaayante woon ak boromam subhanahu wa taala waxoon na sama dund gépp liggéeyal sëñ Touba rek laa ko fa yéene jeexale kon ne xam ne ne foofu la tegoon tànkam ba talutoon boppam talutoon ay këram talutoon ak njabootam loolee nag sëriñ Cheikh Ahmed Cheikh Abdou Lahad noonu na ku liggéeyal Serigne Touba murit yee la war a fay te kenn nattable wut ne Serigne Modou Rokhaya mu ne kon bala cee murit yëpp di jëm ñoom murit yi nga xam ne moo leen jur di ay taalibeem nañ ci jiitu ba noppi fas ko yéene ànd ak bokki taalibe yëpp. ginnaaw ba mu defaree ay makkaan mii nga xam ne fi la nekkoon daan fi liggéeyal yàlla defarit it makkaan mee nga xam ne moo nekk ca Touba te bàyyi ko woon ci Cheikh Mahamadul Mamoun Ba ci ay loxoom ci la wax nag ne naaloon na ci këram gii joo xam ne dako doon def ngir di fi jaamu borom bi subhaanahu wa taala ak jullit yi di fi jaamu borom bi <clears throat> jàkka jooju nag ci lañ toog tey jii fas ko yéenee tàmbali mu yemoo ak fukki fan ci weeru muharram ci atum 1443 ci gàddaay gi dëppoo ak le mille vingt 2021 loolu moo tax danañ jox kàddu gi sëriñ Cheikh Anta <clears throat> mu ubbi jataay bi su noppee ñu jox Cheikh Mahamadul Mamoun mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ànd ak bokk yi nag fas yéene teg xeeru jàkka jooju nga xam ne ci lañ fas yéene liggéey la lislaam kon ñu bàyyi kàddu gi ak sëriñ Cheikh Anta audu min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ala sayidina wa mawlana muhammadin nabiyil wa ala wa ashaabihi wa quddaamihi ajmain Euh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, mbokk yi ginnaaw bu nu sante sunu borom tabaraka wa taala euh, julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nuy sant cheikh alxadim cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu di sant rakkam ju baax ja maam cheikh anta Cheikh Sidil Muxtar ci bunt bi mu nu ubbil ak yoon bi mu nu xàllal ci topp Sëriñ Tuubaa jaay ko sunu àdduna bépp jënde ko ngërëmul yàlla ak ëllëg di sant njabootu borom gaawaan gépp waaye di sant Cheikh Mouhamadul Maamoun mi nga xam ne dëkk bi eh, dundal na ko bu baax a baax ba luñ fi mën a def tey ñu def ko fi ku fiy def daraat moom nga koy sant Cheikh Mouhamadou Maam di sant njabootam gépp di sant nag sëtam yi nga xam ne bokk nañ teew fi ñu teew ak ñu teewul ñëpp ndax xam naa ne ñëpp amoon yéene teew fi bu ñu yëgoon ne lii ñu ngi koy woote waaye dañ ko rëyalut eh, woote wuñ ko woote bu rëy nde kon defe naa ne bokki taalibe yi sax kenn du fi xaj rawatina nag sëti siñ Modou Mamoune yi nga xam ne li ñuy def ni seen maam lañ koy defal rawatina njabootu suñ Modou Rokhaya nga xam ne li ñuy def ni seen bàyyi lañ koy defal euh, di sant sëriñ Alxaaji Mbàkke mi nga xam ne mooy imaamu jàkka ji di sant sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy imaam ratib bu dëkk bi euh, di sant Cheikh Mouhamadul Maamoun ak rakkam yëpp ci seen positif ak seenu taxawaay ak seenu jàppante ci li ñu bokk te mënuñu ko seddoo muy diine bi ak tariixa bi ak seen waajur wu selloo Cheikh Mouhamadul Cheikh Mouhamadul Rokhaya euh, di sant njaboot gépp rawatina nag sëriñ Mbàkke màddin mi nga xam ne euh, sëriñ Maamun da ko fi bàyyi ci liggéey bi te mu nangu ko lool te sonn ci lool moom ak sëriñ Jili mi sëriñ Maam Balla sëriñ maamu suñ Xaadim euh, ñi fi teew nii rek lay tudd waaye sëriñ Maamun mboolem rakkam yëpp déggal nañ ko ci ànd ci euh, jàkka ji fi sunu waajur yéene woon ba sam ba defaloon ko màndarga euh, waaye li ko dal ci kër gi moo ko dal ci jàkka ji suñ mu droxee mënoon naa tabax kër bu yàgg yàgg ay kër yu bari waaye addiya moo ko tee mën a tabax kër yu baree bari ku féet ku féeteeg yàlla nag suñ borom féeteeg yow mm-hmm. daana ko wax itam waxtu wu ne di wax ne bu ittee sëñ bi fajoo rek di suñu itte yëpp faju kon nan góorgóorlu ci ittey sëñ bi loolu nag mooy pas-pas moo di taalibe loolu nag gis naa ne njabootam gépp ñu ngi ci euh, jàkka ji nuyu bëgg a tàmbali euh, bu fekkoon ne dañoo woote nii ba noppi euh, yàlla tere man ma jóge fi suñ maamun ni ma koy àggale moo tax bi ma defee kër gi ma noppi ma ne jàkka ji naa ko teg ci loxol suñ maamun ba ci caatum suñ Moodu Roqe di suñ Mbàkke Madina ak njaboot gi ci diggante bi ñu àggale seen yéene ñoom ci jaamukaayu yàlla bi jaamukaayu yàlla nag ni ko sun borom waxee rek jaamukaayu yàlla yi sun borom a leen moom jàkka yi suñu borom leen moom waaye du du kenn leen moom yonent bi moomu ko Sëñ Tuubaa moomu ko maam Cheikh Anta moomu ko waxuma laa sëriñ Modou Maama wala sëñ Modou walla man wala sëñ Maamun mii jàkka jàkka jàkka la joo xam ne suñu borom ak moom nu fas yéene di fi def li ñuy def ci jàkka di fi jaamu yàlla di ñaanal ki nga xam ne moo rëddoon kër gi di Cheikh Mouhamad Roqe ak way juróom ya ko jiitu ak ña di fekki ak ñaanal taalibe lépp luñ song mu yopp yomb leen ñaanal njaboot gi ñu am fan wu gudd ak gu ba saxal jàkka ji ak jaamu yàlla jaamu yàlla gi ñu fi fas yéene def mboolem lu lu alxuraan digle rek muy di fi jàng alxuraan di fi tudd tudd di fi wéetal sunu borom lépp loo xam ne lii yonte bi daana ko def ci jàkka sëriñ Touba di ko ci def fas nañ yéen di ko ci def samay kàddu nag munu cee bari ndax suñ mënu mu suñ mënu maa woon mi nga xam ne moom laa teg liggéey bi ci loxoom day na ma sëkk ci wet yëpp kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ñaan ñu ñu ànd ci lu ci suñu maamoon bëgg rek ñu fekk ko ci ci ak defar ak rafetal ak lu mën a doon yàlla mën na lu ko ëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim in alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alxalqi wa xabibil xaqi allasi udiba tasibo wa muhisa mualiman wa radiallahu an cheikhina ahmad ibni muhammad ibni abibillah sëñ bi ñoo ngi jéggalu kàddu yi ndax euh, boo waxee ba noppi di mat a wax lépp wax nga ko yéene ñu jàmm rek ak mm-hmm. bëgg a liggéey sëñ Modou Rokhaya te ànd koog ñëpp mm-hmm. moo tax nga tëral lii waaye mën nga ko bu yàgg euh, kon nag ndokk bi ñu ci wooyee tege ko nii ci sunuy loxo ñoo suñ rakk yi yëpp bu jaar ci turu ko ni di lim waaye ñoom ñëpp la mm-hmm. ndax ñoom ñëpp bi ma bi nga ma digalee rek bi ma xàccee ñëpp daw ñëw taxaw waaw kon nag bëgguñoo dimbali rek a tax waaye liñ ciy fas ñun mooy nga yàgg fi loo bëgg def yàlla nga ko def te ñun ñu ngi ko teg suñu loxo yi ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu nga xam ne man nañ ndax loolu dana la may féex am ay ndaw yooyu yónni gis ne man nañ mm-hmm. loolu lañu lay ñaan nga ñaanal lu ko ci amuñu benn werante ci ne lépp loo ñu sant rek xam nga ne mën nañ ko war nga sant ni mm-hmm. waaye lépp lu ñuy def it mm-hmm. yàlla nga ci am gërëmul yàlla loolu rek lañ lay ñaanal da nga yàgg fi te wér euh, ñu def ko nag loo liggéey boo xam ne maa ngi koy wax suñu rakk yépp euh, nay tàmbali waaye bu mu am fu mu yem lu jeex rek nañ ci teg leneen ndax ki la bëgg a liggéeyloo mooy ki la yéene pay waaw lii ba bu la neexoon def ko bu yàgg ndax ñun yow rek lañuy ñuy déglu dégluwuñ kenn euh, yàlla bu sa yaakaar tas waaw sama xool sedd na lool waaw su xool sedd na fu sedd yam ba wax ji sax du sori waaw moom daal tàllal nañ la loxo loo joxoñ ñu dagg ko loolu rek lañ fi nekkee taalibe yépp nangul nañ kon nag yow rek la ñuy déglu kon ñu ngi lay ñaan ci barke Sëñ Touba nga ñaan lépp jàppandi loolu jërëjëf kàddu yooyu moo bàyyi ko ci sëriñ Cheikh jaar ci Cheikh Mouhamadul Mamoun kon nag fu ab taalibee mën a ne te yaakaar Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké ak ku mën a doon sa bunt ci kër gi nanga xam ne liggéey baa ngi noonu sëriñ Cheikh yëkkati ko teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Mamoun mu ànd ko njabootu sëñ Modou Rokhaya gépp képp koo xam ne nag bëgg ngaa tàbbal saw ñaq ci liggéey bi mën ngaa jokkoo ak sëriñ bi ci 77 383 67 67 77 383 67 67 wala boo ñëwee ci kër gi da nga fi fekk Serigne Mbacke Madina mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Mamoun di taxawee liggéey bi subaak ngoon du fi jóg lépp loo xam ne waaye def bëgg na koo def ci néegu bi yàlla liggéey baa ngi noonu ni ko Serigne bi waxee du du du jàkkay yonent bi du jàkkay Serigne Touba du jàkkay Maam Cheikh Anta du jàkkay Serigne Modou Mamoun du jàkkay Serigne du jàkkay Serigne Cheikh Anta du jàkkay Serigne Modou Mamoun wa annal masajida lillahi kon yàlla moom moom néeg bi bi wax tabaxal yàlla ab néeg ci àdduna mu tabaxal la njëndi ca àjjana kon nag ku munta beru tabax jàkka soo ci defee sa benn saakub ciment wala sa benn feer wala sa potum ndox jàpp bokk nga ci ña tabax jàkka ja lépp luñ fa jaamu dana la fa fekk ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالقا ورا مولانا محى الفرا والذحذح الفتانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لأقطع بي ورمشانا وذان لي إن الوداع ما شانا لك أوجهنا أحسن الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقرانا لي وأبت البشر والجيرانا كفيتني قما حوى قسرانا لي تصفي الأمر والجنانا تأبني بلا حنى الجنانا زللت من في البحر قد حادانا والبر يا من بالنبي أدانا يشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا نفيت أني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت ودقانا جذت البحور رضني ممانا بالمنتقى أتبت للزمان جزاء ربي راض لسلطانا مع الأمين والمنى أحتانا